sheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim mbokk julli yi ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam di leen ziyaara di leen ndokkee di leen baalu ak di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal ñun waa kër soppay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bu Dakar Plateau ñun ñoo leen di invité si suñu tàkkusaan Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bu ñuy amal fii le samedi 4 mai 2013 mu ngi am fii si rue Tobia angle Lami ginnaaw hôtel Pacha ku ñëw foofu fa programme bi di amee ñu koy amal mooy suñu oustaz Mor bu Thiès moom mooy waxtaan si la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmad Tidiane Chérif suñu oustaz Ngaari Niang moom mooy waxtaan si les recommandations et chartes du tidianisme keneen ki si topp mooy suñu ustaas sang Babacar Ndiaye moom mooy waxtaan ci charte euh, ci comportement bu taalibi tijaan bi naka la war a comporté ni ñi nga xam ne ñoom ñooy animé takkusaan bi mooy daayira mu jaay diina fi sabilillahi bu fedar ak daayira mu taxabina fillahi bu kaay findiku programme bi mu ngi commencé 16 heures ñuy tàmbali jàng kaamil bu ñu paree julli takkusaan bu ñu paree dugg ci programme bi bu timis jotee ñu julli timis daal day lal malaani wasifa bi wasifa bu tal boo xam ne lépp dañ koy def si addi yonent bi sallallahu alayhi wa ci si addi Cheikh Tidiane ñu ñaan yàlla naka ñëpp teewee ku ko mënul teewee tamit mën nga ko seetaan si asfiyahi point org mooy suñu su site ku ko bëgg seetaan rek noonu ko ko foofu incha allahu ginnaaw loolu ñu ngi leen di sant di leen jégalu di leen ñaanal yal nañu yàlla may ñu fekkee ko te tal ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim wa radi allahu an seyxi tijaani wa man lana ilayhi wasilin kaana bil xumami wa man taallaqa bil adyaani qaatibatan subba alayna illa yabrulasin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci xew-xew yi bi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal te di ko préparé muy la 4 bi ñu jëm la 4 mai Ismaïla Ndiaye am na lu ñu ci jot a wax ak yéen muy tàkkusaanu Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñu ñu ñun waa daara njóobeen bi fii euh, préparé ko pour def ko di ci woo mbokki jullit yëpp ci xam-xam di leen oo ci jaamu yàlla di leen oo ci waxtaane Cheikh na Tidiane Cheikh Tidiane nag waxtaane ko dafa doy waaye ku waxtaane da nga bàyyi xel ne yaa waxtaane xam-xam yaa ngi waxtaane sharia yaa waxtaane xaqiqa moo tax ñu bëggoon mbokki taalibe yëpp mbokki jullit yëpp wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu la alquran wax mbokki jullit yëpp képp ku gëm yàlla rek day wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga ñëw teewe ci eh, ñu yaatal ko Euh, su timis jotee ñu jul timis wasifa ñaanalante ba beneen yoon di ñaan yàlla mu barkeel lañu suñu mébét bi ñu dugg ci bisimilah rahmaan rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil ñu ngi oow mbokk jullit yëpp bàyyiwuñ kenn képp kuy wax ashhadu la laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci oo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim